بعد العزبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد kala sëriñ bi Mbàkke ñu ngi lay ziyaare ci bisu màggal gi yow ak ahlu baari yàlla na doon ay leer anwaar yi anwaar pluriellement lumière kat mooy leer ku tedd ki daanaka kenn du ko gént bu feeñee rek bu ko kenn jàppee gént daa ñëw taxaw yow nga taxaw man ma taxaw mu ne la ah di la jàjj man ma taxaw di la plaider kon gën a la góorgóorlu ndax foofu sa bàyyi yow la fa wóolu ku tedd ki moo defal li mu defal sa maam tey sa turandoo Cheikh Ibrahima Fati mooy sa maam sa defal sa bàyyi lu ko kenn defalul moo tax la muy dund ci moom ñu koy ful sa bàyyi itam defal la li mu la defal doone woon ma ca dara ci sag pal soxna pend di woon wëllëre ci bu wér donte ndey woon ca man it ci lu biir moom ñi mu bokkal ñëpp xam nañu ni man Ahmadou mii noppi naa doon gone yooyu fi ñu toll magum jëmm nga waaye del rafetal rek ndax boroom barke nga xasida nag dafa remplacer ay bal boroom a ko wax li muy wax moo raw fetal nañ jàpp ci ay waxam rek ndaxte li ci des dafa éphémère lu dara yàllaay des rafetal moom élastique la danga koy taawi tey bañ mu def retour naan fàtt ci taawi man de li ñu naan Muhsin maa ca miim ga teyoon yow naka jekk yaa nga woon ca miim ga bul nangoo génn miim gi waaw maa lay miimal da ngay ko baax <laughs> kon du ma nangu ko lay bonal wassalaamu ala man ittabaal huda